chèque bii ngeen jàkkaar lool deux cent quatre-vingts millions de francs CFA la muy engagement bi nga xam ne Tahirou Sarr moom la jëloon keroog ne dana ko jox waatu baa ca kanam check bi nag jébbal nañ ko ñi nga xam ne ñoo doon def émission bi keroog muy Serigne Mandiaye Ngom Serigne Ceddo Mouride ak Serigne Mamou Ndaw Baye Fall ànd koog Pape Sidi Fall mi nga xam ne moo doon animé plateau bi. chèque bi nag ñu fas yéene koo jébbal Touba ca kanam lépp rek di tàbbi ci liggéey bi nga xam ne moom lañ soobu mu jëm ci assainissement bu Touba. bëri na kilifa yoo xam ne engagement yi jëloon ñu ngi koy respecté di ko def waaye engagement bi mooy bi ci gënoon a mag muy 280 millions yi nga xam ne Tahirou Sarr jëf na ko ci Touba ca kanam mu nekk lool mbooleem taalibéy murit yi sant nañ ci bu baax a baax ci taxawaayam. waaye ñaanal ko noonu it la ko waatu Touba ca kanam sante bu baax a baax ci jëf ji nga xam ne réy na ci ñoom lool